en deux mille dix neuf. voilà deux mille vingt dañoo projeté woon ci taux de croissance à deux chiffres. voilà yaa ngi ñëw nag ci wax ci. Covid bi ñëw këpp yelwaat bi ñu passé l' étape Covid ba tey ñu ngi dund les réminiscences euh, de cette euh, de cette pandémie là. Sénégal mu ngi jéem a yëkkatiwaat son son son son son son taux de croissance pour passer Covid beeg conséquences yeeg la guerre russo-ukrainienne euh, la la la la dette a a enflé aujourd'hui on n'a plus euh, beaucoup de de de, de possibilités euh, en en termes de mobilisation euh, de de de ressources euh, dem nañ sax fan yële FMI jox ñu aide budgétaire cent soixante euh, cent soixante six xam nga cent soixante huit cent soixante huit milliards beaucoup de grands projets arrêté nañu leen euh, beaucoup de structures dañuy fonctionner clopin clopin ñu am euh, ñu ñu yaakaaroon ne mandat Macky Sall bi 2019 2024 dañuy concrétiser dañuy mettre dañuy continuer mettre en œuvre les de l'économie dañuy continuer investir euh, dinañu génn ci guuta économique bi ñu nekk deux mille deux mille vingt Covid deux mille vingt Covid bi ñëw deux mille vingt et Euh, dossier Ousmane Sonko bi commencé réew mi nërmeelu économie bi sooxe euh, aujourd'hui 2024 dañoo war a démarrer l'exploration l'exploration euh, de nos ressources pétrolières et gazières c'est-à-dire sénégalais yi ngay wax report tey duñ la mën a déglu parce que li ngay report boobu c'est encore nous laisser prendre en otage par une classe politique boo xam ne intérêt rek lay seet léegi on en vient à l'économie est-ce que xalaat nga ne réew mi ci défi économique yi mu toll nii est-ce qu'on peut se se se se, encore di dugaat ci ay échéances politiques électorales euh, alors que 2024 bi bu yàlla defee jàmm dina dinañu élire un nouveau président euh, de la de la République et ñu mën a jublu ci li nga xam ne moom mooy les défis économiques waaw léegi euh, je pense que Sénégal moom 2019 bi ñu éliré Macky Sall ak léegi confirmé na toutes les critiques que nous nous faisions contre voie bi mu jël. politique rek lañ def boobu ba tey. waaw ah, non même pas politique def nañu économie ils ont fait l'économie mais ils ont pris une voie boo xam ne bii c'était pas une voie solide. moo tax bi premier choc bi ñëwee mooy Covid on l'a senti automatiquement dafa nërmeel ils ont pris une voie pour le financement de l'économie boo xam ne bii dafa jël doole bu bare jox ko dette ba ñu dépasser même le seuil bi ñu pré bi ñu jox 66 pour cent pour cent du PIB te jeexagul mu jël yoon boo xam ne bii malgré tous les discours ci ps e bi. les réformes qui devaient être réalisées les 17 réformes defuñu ko il n'y a pas eu de réforme. si ne dites pas qu'il n'y a pas eu de réforme. moi je suis je vous parle en connaissance de cause. les réformes fondamentales yi ñu waroon def am na ñu commencé am na yu des mais les véritables réformes la réforme du travail la réforme de la commande publique naka lañuy ñuy séddalee alal bi état de séddale. le travail lan mooy liggéey lan mooy fonctionnaire lan mooy secteur informel ban mesure la ñu war a jël pour que secteur informel bi nga xam ne li muy occupé ci économie bi naka lañ koy intégrer ces réformes là euh, defuñu ko defuñu ko dañu ko sori sax donc c'est une succession de facteur indo endogènes yoo xam ne ñoom ci seen biir dañu tële ak facteurs externes yoo xam ne yi da ko indi conjoncture internationale bi ñëw nag gën ko garawal avec la crise de l'Ukraine avec les repositionnements ñu mujj dem ba suñu économie bi extraverte li ñu amoon sax même culture arachide bi gis nga nu mujjee dañu mujj jël graines yi di ko jaay chinois yi ñu casser complètement le tissu industriel li ñu doon wax ñoom dañu bëgg soppi koom-koomu réew mi ba mu amal njëriñ ñi nga xam ne ñoo ëpp ci réew mi moom la ñuy wax transformation structurelle wuñ ko def donc c'est un échec palpable foo ko mën a jële ci chiffres yi jël nga ko déficit bi gis nga nu mu mel dañuy mujj di leb pour même financer déficit bi pour wa ramener ko à 3 3 virgule à 3 pour cent au départ bi ñuy def suñu budget le dernier budget c'était à 5 virgule 5 ñu annoncé ay chiffres budgétaires yoo xam ne moo suñu ko atteindre boo xoolee loi de règlement yi moo suñu ko atteindre donc fi ñu jëlee xaalis bi problème la fi ñu ko dugal problème la capital humain bi mooy éducation santé diaspora bi gis nga nu mun nërmeloo nga gis xale yi affaire immigration donc problème bi ce n'est plus le régime et les douze ans ça c'est déjà réglé maintenant naka lay jeexee man li nga wax nii laa souhaité ñu ne kii def na ba ñëpp xam ne lii mooy résultat ñu dem ci élection si jàmm ñu remplacer ko jox ko un président mu réparer affaire yi ku ñu woolu ku am programme loolu moom la idéal bi mais li ci laxasu man moo ma jaaxal. li ci laxasu lan. mooy que. dafa nekk ci contexte boo xam ne un dafa am ay sources de tension yoo xam ne yi xanaa nga bañ a nekk de bonne foi mais man dey dafa am source de tension yoo xam ne man yaakaar naa ne mënuñu jël yenn risques yi sur la question de la participation des candidats il y une source de tension sur la question internationale suñu positionnement sécuritaire il y a des sources de tension qui sont claires la situation du front social à tous les niveaux ñëpp xam nga élection bu jege see ku nekk da ngay teg say revendications pour mettre la pression à tous les niveaux collectivité locale santé éducation école yi tëj. loolu du fi lu bees. xam nga du fi lu bees. li ci a vécu pire. je bon mooy dajaloo bi. c'est-à-dire que loolu yëpp bu fekkoon dafa am par exemple li yëpp amoon te amul problème participation. wala li boo amoon te amul contexte international avec le cercle de feu mais man li ma jaaxal mooy affaire bi du mu dajaloo côté boo laal rek dafa am benn pièce su puzzle bi bu nga xam ne li mu teg nii man pour man c'est un tapis de feu gis nga tapis de feu boo ci tegee sa tànk des na la beneen tëbin gis nga bu ñu parax paraxee ba organiser élection dans ces conditions la le risque est gros. ma yàlla ñu dem ci. maintenant bu fekkee ne nag la les Sénégalais les hommes politiques. gëm nañu ne crise bi am na li ma wax ñëpp am na mais jarul reporter bu ñu reporter